di ñaanal nag cheikh mouhamadul muntaxa moom cheikh man bachir yàlla guddal fanam wérali cëram suuxat yéeneem ba lépp lu nga xam ne bëgg na koo liggéeyal maamam bi tedd yàlla defal ko taw feex te ñaanante ko may ñaanal tamit cheikh mouhamadou mbakke cheikh soybu yàlla guddal fanam wérali cëram ak njabootu cheikh soybu gépp yàlla sàmm leen sàmm njaboot bi suuxat yéene ji ba lépp lu nga xam ne yéene nañu ko liggéeyal maam yi te de rawatina fii ci Touba Madiyana yàlla defal ko tawféex ba lépp man koo mot li te ñu àndante ko may yëkkati lu yooyu sell nag di ko ci loxob Cheikh di ko def ci loxob Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ni moo ko fi teewal si ànd ak rakkam yu tedd yi di Cheikh Mamadul Muntaqa wande di yëkkatiwaat nuyoo yu tedd di ko teg ci loxo sëriñ Saliou mi nga xam ni moo fi taxaw taxawaayu sëriñ Abo Madiana son yu bu mi nga xam ni mooy chef de village yu Touba Madiana wante wëlbatiku nekkaat conseiller municipal bokk ak ñun commune ba te tey mu mel ni mënoon naa taxaw fii xëy na xat-xat la lépp luñ fi war a wax mu wax ko ndax bu boobaa dana taxawee ëttub maamam bi wande dana taxawee cër ba nga xam ne jox nañ ko ca commune ba wande xëy na xat-xat la kon dafa mel ni dañ koy wotti ko ci wàll woowu di ñaan sëriñ bi mu jottali ñu nuyoo bi bu jógee ca maire de la commune de Touba Mosquée jaar ci moom dem ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Sonhibou di leen ñaanal rek yàlla dool taxawaay bi ma profité kon wax ni bi ñuy ñëw fii tey ñi ngi ànd ci délégation bu mag bu nga xam ni le maire de la commune de Touba mosquée Serigne Abdou Lahad Ka moo ko fi yebal tànn nag ni ngeen ko waxee doomi Madiana muy conseiller municipal ma wéttali ko ci yoon wi muy Serigne Sidi moom Serigne Cheikhouna moom Serigne Abdou Lahad moom Cheikhul Khadim mel ne ci ëttub maamam ëttub baayam ci la ñëw jiite délégation bu jóge ca Serigne Abdou Ka mi nga xam ni Serigne Sidi moom sëriñ Abdou moo ko jiital ca commune bee ñu nekk mu indi ay nuyoom indi ay cantam indi ay yóbbanteem dana ñëw léegi yëkkati kàddoom ci wàll woowu waaye man dama doon ubbi rek présenté délégation bi dana ñëw léegi moom mottali waaye bi ñu ñëw ni ko soxna Saynaw fa léegi ñoo ngi àndante ak l'adjoint au sous-préfet de Ndam Serigne Mouhamadou Samba Bousso nga xam ni bi mu fi ñëwee léegi matul un mois mu remplacé nattangoom bu fi nekkoon di Serigne Ibrahima Sall ñu yóbbu ko ca Makakuli Bantang ñoom ñu nekk ci keru le sous-préfet de Ndam di Serigne Babacar Ibra Mar yàlla dogal mu fekk ko ci congé wande soxna maam say ni mu ko waxee ñoom seenu taxawaay ma nga jógee ci le préfet du département de Ndam Serigne Makhtar Diop mu taxaw fi taxawaayu état du Sénégal ci njiitu le président Macky Sall waaye fii ci région bi jaar ci gouverneur de la région góor gi mbay kon ñoom seen taxawaay noonu lañu ko euh, soññe noonu lañu ko matalee mu mel ni kon état du Sénégal ñëw na ànd ak la commune de Touba Mosquée ñëw teew si ci jataay bu mag bi wuy si waa Touba Madiana tàmbalee ko ca ndigal ak ñaanu Serigne Cheikh Ahmadou mi nga xam ni mooy xalifa Touba Madiana ak njaboot gi yëpp wande fekk si ñan muy euh, association taxawu Madiana ànd taxawu Madiana te ñuy lancé tey lu am solo ci aspect yu bëree bëri wande ñu tànn ci lenn mu jëm ci wàllu environnement mu mel ni dañu ne moom la ñu tuddee Madiana zéro déchet te loolu yàlla def tawféex fee ca commune de Touba Mosquée ma bokk ca commission boobu nga xam ni mooy la commission de l'environnement du cadre de vie du développement participatif et de la planification bi Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma di ministre conseiller auprès du président de la République jiite ko mu mel ni moom tamit yóbbante bi ànd na ci ci lépp ci suufu Serigne Abdoul Ahad Ka wande ni ma leen ko waxee woon rek kaddu gi muy kaddu maire di kàddu le sous-préfet di kàddu préfet lépp Serigne Sidi moom Serigne naa moom Serigne Abdou Lahad moo koy jottali man dama doon ubbi rek présenter délégation bi wante présenter aussi anam yi nga xam ni ak contexte bi nga xam ne noonu lañ ñëwee fii ci Touba Madiana wuy si leen kon Serigne Sidi bismillah bu ko defee moom lépp luy kaddu yu maire ak yéeneem ak taxawaayam dana leen ko jottali euh, li may préciser. moom la ma sama xaritu bopp bii di wax Ali kàddug le sous-préfet de di kàddug préfet di kàddug gouverneur loolu yëpp ni ma leen ko waxee eh, l'adjoint au préfet Serigne Mouhamadou Samba Bousso ni ma leen ko waxee bërki démb lay door a jël fonction mu mel ni passation de service bi yàggul waaye kàddoom yëpp daf ko jël delloo ko mairie mairie porteel ko ko porteel ko l'état du Sénégal parce que lépp benn démembrement rek la yaakaar naa ni loolu bu ñu ko aussi dana matale ñu jéggil ko di di ko ñaanal nag dalal ko c'est l'occasion ma wax leen ni c'est sa première sortie bi mu ñëwee tiig léegi guléet baa ngi nii mu defe ko Touba Madiana kon sëñ bi ñaanal leen ko bu baax a baax ñi ko ay moroomam defee Madiana la ko njëkk a defee bërki démb la jël service kon nañ ko ñaanal bu baax a sëñ Sidi bisimilah.